làmb ji mooy làmb ji sàjj na de non man moom xoolal est-ce que duma dellowaat delloowaat gars yi seen revue de presse yeeg seen journal yeeg seen kacac kacac yi xam nga euh, RFM ak Futur Média ak TFM dañoo def lu garaaw xam lu def dañoo gis ne làmb ji mi jëm suuf ñu récupéré yóbbu ma RFM di ma defloo journal week-end yi waa TFM tamit jël ma di ma defloo revue de presse yëpp laay accu dem ci làmb làmb ji saa na ji yàlla na fi yàlla jëlee pandémie bi ci barke alxuraanu karim mais 2021 incha allah rabbi nga gis làmb yu neex. Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Bombardier Reug Reug ñoom combat yooyu am ak yooyu Ama Baldé Modou ay combat yooyu ah non maa fi làmb ji sàjj na ay làmb yu neex ngay gis. ñu bari foo ko déggee. parce que dañ ne combat yi nga xamante ne gars yi ñu bëggoon mooy ni combat yi dañ de génération. grand contre petit. ndax Boy Niang dafay yàgg a topp combat bi gars yi dafa gis ne ñu gis ne feeñam loolu noonu Boy cinquante du ngeen mbokki booy ñaa yéen buggu leen booy ñaa yéen li leen neex mooy na booy ñaa ñëw ak som buñ ko munti fay mu bëre ak Balla daanu ndànk dem carrière am yàqu du ko def dafa am plan de carrière man faraluma booy ñaa faraluma Balla Gaye faraluma Modou faraluma kenn xam nga kan laa faral làmba te làmb laay wax te sama analyse incha allahu rabbi fekk maa ngi dekk sama bakkan bi li ma xalaat laay wax te logique laay wax. Balla Gaye boo koy xool moom ak Boy Niang dañoo bokk classe waaye dañoo bokk école waaye bokkuñu classe. Balla Gaye ñi mu bëreel Boy Niang bëreewul ak ñoom waaw Boy Niang daa dof bay jël Balla Gaye ci cinquante millions kon daan nañ ko te demagul làmb ja cinquante millions daa daan Balla Gaye cinquante daanul Balla Gaye dama koy waxaat. cinquante millions daanul Eumeu cinquante millions daanul Modou dama dama li bëgg ay boromi yi mbokk lañ te am ñoo xamante ne ni saa yoo amee compagne ñu téye deux cent millions teg ko ci taabal ji waaye yaa fàttaliwu ko ba euh, Balla gay ak euh, euh, Modou Lo fu Aziz dem ginnaaw Nigéria xaw ma fan ak fan ak mooy li ngeen gis loolu ngeen gis noonu c'est la partie visible de l'iceberg li ñuy def ci suuf ak sarax yi ñuy génne noonu cinquante millions préparé wul Balla Gaye Balla Gaye n'est pas un petit lutteur Bombardier n'est pas un petit lutteur Eumeu Sène pas un petit lutteur Lac de Guiers n'est pas un petit lutteur Modou Lo n'est pas un petit lutteur Gris Bordeaux n'est pas un petit lutteur ñooñu du ñu ay mbër yuy fayeeku ay cinquante million ba cinquante millions di la préparer un je m'explique bu bu bu ñu nee euh, Boy Niang jël na Balla ci cinquante millions ay mbokki euh, Boy Niang dina ñëw jël ci seen wàll balaa sëriñ ci di jël seen wàll manager am dina jël 10 pour cent am yaayu Boy Niang dina jël wàllam ay mbokki booy ñaa dina jël wàllam bu ñu saamee xaalis ba teg ko te amul benn promoteur je pèse bien mes mots amul benn promoteur buy waxaale ak cinquante 50 millions yëkkati 25 millions jox la ko avance amul ci làmb dañ la koy càppat càppat bay dem CNG loolu moo am ci làmb ji. suñu waxaaleeg yow cinquante millions mën nañ laa jox quinze millions nga dem waaye yow Boy Niang day xaru xanaa eh kaay ma yëgal la ñaar Balla Gaye ak Modou Lo ak Ama Sène yooyu du ñu ay ñeexu ñeppe du ñu ay mbër yu ndaw bu ñu jógee réew jóg ay mbëru réew lañ du ay mbër wayaa yi de mbër yi ma la limal nii ay mbëru réew lañu bu ñu amee bu ñu amee combat Guinée-Bissau jóg Gambie jóg Mali jóg Ourossogui jóg Bakel jóg Casamance jóg ñëpp jóg te foo dem da nga fay yóbbu dara waaw booy Niang dina dof-doflu liggéey loolu ba pare après jël xaalis boobu ah, dem def ko ci sëriñ croiser les bras am na plan de carrière ma je l'applaudis des deux mains fi nga ko jàpp foofu la. bul aka bari ay adversaire Boy Niang ñëpp ay adversaire am lañ mais revanche Boy Niang ak Lac de numéro 2 neexu la. rim ak boobu neexul ñëpp am guut na nachevé kenn kontaanul ci Boy Niang ak Lac de Guiers kenn du yow du man du keneen ak keneen ak keneen ak keneen kenn kontaanu si eh Sa lu mu wax bi muy bëree ak Boy Niang daa juum waa boo buñ ko ci timbaxaatee bu bu Boy Niang bëree ak Sa Thiès bu ko daanee du dem ne buri bàcc li génnal sa jëkkër ma bëree ak moom ko combat boobu kenn du ko weddi combat boobu day day neex Boy Niang xale la plan de carrière la am bu muy suba garde bu jëlee bootam teg ko ci Balla gay jël ko ci yenn somm yi bu ko Balla daanee mu gaare. waaye combat boobu combat da koo dàq maa fii Balla Gaye Gris Bordeaux dama koy wax di ko waxaat la répétition elle est pédagogique wax waxaat lu bari wax waaye leerali wax la wolof dëgg ne eh dañoo bëgg nga dégguñu Balla gay ak Gris Bordeaux keroog bu ñuy bëre ku dugg stade génn stade kontaanoo. kontaanoo supporteru Balla Gaye yi kontaanuñu ci moom supporteru Gris Bordeaux yi kontaanuñu ci moom lenn la ñu kontaanee ci Balla yi xam nga mooy lan mës na bëre 45 minutes ci carrière am yëpp booy xool combat yi mu bëree ca commencement ba tey mës na bëre 45 minutes te bëri na ak euh, Gris Bordeaux 45 minutes xam nga lu mu doon wan gaayam yi dañ ne damaa feebar dañ ne mënatuma dañ ne ma tenir yobu Gris Bordeaux à l'usure loolu la doon wan gaayam yi di soowaale la ilaha illallah Balla Balla Gaye ak Gris Bordeaux ku ci daan royal Modou Lo mënu laa bañ di fan la lay bañe bu fekkee Modou Lo bëre na ak Eumeu ba pare bu fekkee ni Modou Lo moo daan mais ñetteelu Modou Lo Balla Gaye lu ko dàq ñaareelu euh, Modou Lo Gris lu ko dàq comme Balla Gaye du bëre ak euh, Ama Baldé bu Ama Baldé daane Gris Bordeaux Ama lu ko dàq la amul combat yu ko dàq moo tax Gaston a été très intelligent jël ñaari avance rek ne Balla am téel ma en attendant les événements xam na lim def de combat Gris Bordeaux Balla Gaye combat dàqu ko du ko dàq maa la wax ñaari mbëru réew lañu waaye face ak géejawaay coow loolu mais signature contrat Balla gay ak Gris Bordeaux sa papa Lamine Samba taxaw ci digg bi oh waaye bàyyi ma waay waaye yow waaye xam na li la wax. ñu Sa Thiès am na combat. ah. du non la wax moo kan la non Sa Thiès am na komba waaw. kon may am na komba waaw. am na komba gis ah, waxuma kan lay dajel de bu ma dugal waxuma kan lay dajel. <laughs> combat yi taxaw bari na de. Ah. la ilaha illallah yuu ay yal nañu yàlla may ci kattanam deux mille vingt et ñu fekkee ko ak jàmm ak salaam mais combat yi taxaw bari de. Euh, waaye ñemewuñ ko mbër yi ñemewuñu tafaatin ku ci jëlul tafaatin danga koo ragal wax ji mooy loolu c'est le géant di bawol nañ ma baal ci kàddu ki ku jëlul tafaatin danga koo ragal ku ñu jox avance am nga delloo ko lu tax ñemewuñu tafaa tafaa nag nit mënu koo génnee ci làmb ji dafa bokk ci làmb ji nee naa ko boo bàyyiwul door doo gaaw gis avance wàññil tuuti gaa ñi ñeme la parce que kenn ñemewu la ñi ko ñeme bariwul de Balla Gaye mi ñemee ah, Tapha Tine ba jël ko daan ko amaa Baldé mi mi ñemee Tapha ba jël ko daan ko Bombardier mi mi mi mi bëre ak Tapha ak keneen ak keneen mais yow xanaa yow da ngay fàtte Tapha gars yi dañ koo ñemewul loolu nag ñi ko ñemee wax bariwul du du damaa sañ a wax waaye gaa ñi ñemewuñu Tapha moo ta jëluñu ko duñ ko boole ak ah, a bari ay adversaire ñëpp ay adversaire am dafa mi wàcc catégorie ba bëre ak Ama Baldé te bëri woo te bëri combat royal moom moom ak Bombardier bëri ak Balla Gaye numéro 2 bëri ak ñëpp la tabaakan la bëree lu la bëreel gars yi ko jël dañ ko ragal dañ ko jël tabaa ci làmb ji bokk bokk mënuñu ko génne ci làmb ji. moom it moom it combat bu neex neex ay combat yu neex la dëgër kan moo nekkul adversaire am si làmb bindal ma rek nga ne ma ah papa diw de du adversaire euh, la dëgër bindal ma. wax ma kan moo dul adversaire am bi muy bëreeg Modou Lo Modou Lo ngi ci digg ndëndëm bi muy bëreeg Eumeu Sène Eumeu Sène ngi ci digg ndëndëm la dëggee dem ba bëri ak Moustapha Guèye le premier le deuxième tigre de Fass dàq a bëri ci làmb ah la dëggee nag tamit ci làmb la bokk mais man gis naa revanche bu neex waa la dëggee ak Tapha Tine loolu du neexu la combat la de combat bu neex la waaw ñoom ñooñu kenn mënu leen jëlee ku leen jëlul da nga leen ragal. waaw. ëllëgu Ama barki yàlla Sénégal man maal maas bëgg naa xam Sénégal fan lañ jëm yow Ama Baldé bëre bay bëre combat royal ñu ne Ama Baldé daa dellu ginnaaw waaw kañ lay avancé. damay laaj kañ lay avancé man dama doon dégg ñu naan président Macky Sall du dem waaye yow ki dem ba nekk président de tous les Sénégalais ñu naan du dem ko kañ àgg amaa Ama Baldé attends ma wax la combat royal lay bëre te Serigne Fallou Luc Nicolaï yàlla na ko yàlla génnee ci kaso bi Serigne Fallou Luc Nicolaï place am du kaso. ñi nekk ci kaso bi yëpp seen place du kaso mais rawatina Serigne Fallou Luc Nicolaï place am du kaso il investit son argent pour la jeunesse. stabilité pays bi moom Serigne fallu de cee joué place am du kaso wax naa ko waxaat ko tu le président de tous les Sénégalais tu es le chef suprême des armées baalal Serigne Fallou Luc Nicolaï comme ni nga baaree Karim Xrum Xax comme ni nga baalee ñeneen ak ñeneen c'est Macky borom yërmande nga baabu ma la man dama ànd ak yow ba ñëpp xam ne ànd nak yow te mosuma laa jox loxo wutuma audience si yow. du ma politicien aw ma carte benn parti jéggalal Serigne Fallou Luc Nicolaï man nga ko place am du kaso bu nekkoon lu ñuy dajale xaalis bu ñuy dajale ah man man porté wu naa volontaire bés ni ki tey billahi wallahi taalaay barke alxuraan bu fekkee xaalis bu ñuy dajale la man man man ma uuf futur média taxaw futur média ñu taxaw ñu dajale xaalis bu mu jaar sama loxo ñu génn mu nekkee sëriñ si ñaan nañ ñu ñaanal Serigne Fallou Luc Nicolaï génn ci kaso bi bu fekkee ndimbal ak yërmande la ñuy waat nañ ko nañ ko def bu nekkoon ay yat moo ko fay génnee ñun dañuy jël yat dem fa waaye nous sommes dans un pays de droit bu fekkoon ñaana ko fay génnee man pare naa pour lu ma am ma def ko ci ñaan pour mu génn ci kaso bi ak leneen sa place n'est pas à la prison nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi imaginel tey keroog ba ñu nee Balla Gaye astafurlah euh, euh, Modou Lo ak Ama balla taxaw na réew mi yëpp a kontaan am na luñ fi doon wax banaan suñu 400000 ak suñu 500000 ak suñu lii mais keroog ba ñu nee euh, Modou Lo ak Ama taxaw na ñëpp a fàtte lépp di wax ci làmb ji mais keroog ba ñu nee tarak lig ni ko laa jàpp ko jàpp ñëpp seen xol moo am ñëkk-ñëkk waaw problème bi lan la Bertrand Tulli baal ko lig sa doom la yaa ne sa doom la yaa ko tette daa juum juumul Bertrand baal ko dama retirer sa plainte baal ko te yàlla tax li ñu ko laay place am du kaso du dañ na Bertrand papaam la moo doon père adoptif am diggante baay la ak doom na kilifa yu aada yi kilifa cosaan yi kilifa diine yi ñëpp jóg dem ñaani Bertrand Tulli mu teggi tànkam lig Nicolas ngir yàlla ak yonent bi c'est un père de famille il a léppam euh, jaxasoo na man dem jóge naa fii dem ba Saint-Louis ñu ne ko lamin Samba moo lay seet muy jooy ne mënumaa gis Lamine Samba ak bët sama lépp la jëlal ma sama mag bu ma bokkal ndey ak baay dénkoon ko lépp ci Luc Nicolaï and Co ñëw fekk ma ne ma Lamine Samba ma ne ko naam mu ne ma xam nga lan laa bëgg nga bàyyi journalisme bii ñëw bokk Luc Nicolaï and Co ma ne ko non journalisme bi passion la dama ko bëgg sama xol waaye Luc place am du kasawaay dañ waxante dëgg nañ ko bàyyi président Macky Sall baal ko sukk nañu quatre pieds baal ko waa kër Serigne Touba yi nañ jóg parce que taalibe Serigne Touba la waa kër maam El Hadj Malick nañ jóg waa kër bu Kunta nañ jóg ñëpp nañ jóg ñu dem taxaw ñaan kan lañu ñu war a ñaan ñu dem ñaani ko pour ñu baal lig di ko laay nekkoon ci beneen diine ñëw ne Serigne Fallou laa tudd di ko jëfe di ko waxee keroog ba nga xamante ne nii nëbb nañ ko jant ba génne man la woo Malick Thiandoum Modou Lo ñu ànd ak moom dem ci bër kër Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq dafa génn kaso rek woo ma keroog oto bi sama oto la li ko laay dugg Serigne Fallou photo yaa ngi fi archive yaa ngi fi mu jubal directement kër Serigne euh, Abdou Karim Mbacké keroog ma jox la exclusivité dafa tombeek sama oto paan ma ñëw ne Serigne Abdou Karim Mbacké mu ñu gunge ba ci bunt bi man la mooduloo Lo Malick ak Serigne Fallou liñ di ko ñu génn ba ci bunt bi ma ne ko Serigne euh, sëñ Abdou Karim Mbacké borom ma xalimal axla mu ne ma waaw ma ne ko sama oto bi daa paan mu ne ma anam ma ne ko moom laa indi fii daa par ne mu ne di nga am beneen waaye bi ma ñibisee laa am Range Rover billahi wallahi taala ay sang bi Mbàkke ñaanal waaye sa taalibe bi place am du kaso waaye yow ngeen baal ma déggu leen fi woon feebaru Balla Gaye dañ ne nañ taxaw ci télé ñu faj euh, ñu ketal ko faj dama ma leen di laaj Bombardier Papa Dia yàlla yàlla woyofal suuf ci kawam jéggal ko ay bàkkaaram Pape Dia Bombardier jëlewu ko fi yóbbu ko France ñu dem faji ko yàlla ñëw xoolal saa kajoor jëluñu ko fii yóbbu ko bitim réew mais gis nga man xam nga lan laay bañ man maanaam Lamine Samba dafa feebar sénégalais yee ko war a faj boo ñëwee Futurs Médias tey structuré lañu structuré boo xamante ni tey ku ci feebar am nga ipem booy dem pour faju ji lamb loolu la ñu war a xeex pour ñu am ko mais c'est pas parce que diw dafa feebar sénégalais yee ko war a faj ku ko ci fajul da ngaa bon léeg-léeg nga yaakaar Lamine Samba mi ngeeg àdduna li ci biiram te fekk billaay dépense amu ko day wéyee sutura léeg-léeg ñu tooñ Ama Balde waroon naa def lii ci Jules de junior fekk Ama Balde mi ngi ay problème yoo xamante ne ci biir boppam su ko waxoon nga daw génn dem Ama xale bu boot ñëpp xale bu boot Pikine waxuma la famem de boot Pikine ñëpp gisoon nañ ni seen kër meloon ak ni mu ko def tey Ama bu bëriwul fu muy jëlee xaalis xanaa xamuloo ni Fatou lamin Samba feebar dong nga woo. wasaare TV mu ñëw wane ko ne Lamine Samba dafa feebar benn saaliw xule bu nekk fële faj ko mais wasaare TV moo ko faj parce que moo ko wane est-ce que comprendre que fi may waxee Sénégalais ñooy gaaw a critiquer léeg-léeg sax ñu déplané famille benn nit mooy jékki-jékki fële waa Mass Boga daa feebaran ah. Sénégalais yi kenn faale wu ko si te fekk neexul sax waa këram déggoo ma de fekk la ñu wax noonu ci Mass Boga neexul sax waa këram. man ku may may takk rajo yi loo mën a am jëlal ku may may taal taal caméra loo mën a am jëlal am na ñoo xamante ne nii soo leen tegalee ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards taal caméra ñu leen lekki suuf la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne li ma nanguwul kañ mooy ñuy dënd nagu dëji bàyyi si ordonnance yi jënd ordonnance yi te bàyyi nagu dëji man ku ma ko def billaay dinaa matt dinaa dekki matt la delluwaat pour lan nañuy dimbali nit ki ca fam ko soxlaa te gars du ñu may muuma ku mënul wax duñ la may du ñu may ku silmaxa xam nga kan la ñuy may ki takk rajo yi takk caméra yi loolu la ñuy may nañ ko bàyyi waay am na nag ñuy def lu baax man gis naa ba tey nit woo ma ma ay kilifa yu mag ci réew mi woo ma ñëw ñu ne ma kaañu ànd muy guddi dem fa wàccee lu mag ci kër koo xamante ne yaakaaru ko woon amu ko loolu la nit di def am ñoo xam ñu mayee 1000 francs sax taal caméra yi boobu yàlla gis ko instant bëri na de espoir làmb yi moom bëri boo waxee Reug Reug rek ëmb na ñëpp parce que Reug Reug demul ci kaw wàccul ci suuf moo nekk ci diggante bi ku ñëw moom ngay mbëkk soog a dem mais ñëpp nga fa ñëpp làmb ji moom dafa dafa bari ay espoir macha allah. ñaata lamb espoir mu am bu loon woon pandémie bi ñu dem stade mu fees dell am na ci làmb yoo xam ne sax dafa feesal presque arène national loolu la lamb ji neex na espoir yi baax nañu xale yi ñooy ŋànki lamb ji parce que ñi ci kaw ñi ci bëri bëri jeexal nañ ñi ci bëri Balla Gaye day bëree ci 5 ans Eumeu Sène day bëree ci 5 ans pour lan pour lan dootuñu ko defati Bombardier dans 2 ans mu bàyyi nañ waxante dëgg qu'on se la vérité. ah 45 ans daal doy doy na ci sportif après nga dem seeti leneen quoi. waaw dégg yow ñoo teg te xam nga ko am quarante cinq ans mën ngaa am doom bu am 26 ans mbaa mbaa lu ko ëpp sax nga toog ñu naan door nañ sa papa surtout Lamine sax mbaa mu rëy Lamine door na ko doom ji day ñëw fekke la nga taxaw mu ne la tout pësale ah baay daa neex di door naa sa baay ci bi muy nekk xale d'accord xale yi xamuñu dara mais xale yi bu ñu commencé màgg reporter yi mooy loolu de nañ def attention de man Xaadim Njaay mos na ma ko wax. ne ma samay gëléem màgg nañu na gars yi xool liñ may wax ay boucher ay affaire yooyu te dëgg la dëgg la 45 ans doy na quoi ah pour man. noo gisee bàq. ah moom xam nga ñëpp ci bokk làmb moom làmb moom man moom bu ma amoon doole sax bëri ci làmb moom amul ay màgg bëreeg kii bëreeg kenn judduwu ci làmb Balla Gaye dong lañ fi ngénte xaalisu làmb est-ce que doomu Double Less yëpp ñooy bëre. dama laa laaj Mbaye Gueye da ngaa dégg benn doomam bu bëre. Manga 2 mii da ngaa dégg benn doomam bu bëre Tyson da ngaa dégg benn doomam bu bëre Yaxya Jóob Yékini da ngaa dégg benn doomam bu bëre ñun ñëpp ay màgg bëri lañ ñun ñii sax ay màgg wax lañ ndax ñun ñëpp kenn sa bàyyi nekk ci woon kenn waxu ci woon ay màgg wax lañ de ñëpp nañ bàyyi mbër yi ku ci bëgg bëre demal nga bëri ci waaye daal lu nit di def di ca tedd keneen torox na ca mbiru yàlla moo demee noonu ah ñu bare ngi bëgg doon Modou ñu bare ngi bëgg doon Eumeu Sène ñu bare ngi bëgg doon Bombardier ñu bare ngi bëgg doon Balla Gaye mais mënuñu koo doon ñoom ñëpp VIP yi matuñ ñu diis te ñëpp ñoom moom la ñu bëgg doon te huit mille et quelques licenciés moo ci am nga gis peggu géej gi koo xam ne day entraîné cinquante ans du musa a bëre du mës a téye million yàlla mooy demee noonu mbiram moo demee noonu seen man maa ngi ñaan dama dama saluer trop maturité Matar Ba ministre des sports euh, xam lu tax ma saluer maturité li coow di di yéeg di am yëpp déggoo ko deful benn sortie médiatique kilifa noonu lay def kilifa bu sa kër dee jax-jaxe da naan tekk soo nee tekk rek di nga xam dëgg gi fu mu féete Sitor kenn mënu koo génnee ci làmb Malick kenn mënu koo génnee ci làmb Alioune Sarr kenn munu koo génnee ci làmb nañ ko waxtaanee rek làmb bari na coow mais bëriwul problème yoo xam nga li ma la wax sax ñun ñi journalistes yi dañuy jékki-jékki sax kuloo xeex mais doo gis kurpeñ bu jóg ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ ko waxtaanee te nañ ko waxtaanee incha allahu rabi dinañ ko wax Alioune Sarr nag mi ñu bëgg mu jóge fi du ñun ñoo ko fay jëlee bu doon ay yat la jël nañ ay yat mu jóge fi bu doon pétition la mais état moo koy fal état bu ne wóolu ñun luñ ci man mënuñu ci dara de Alioune Sarr daaw jéeg bëggoon naa bàyyi mais Matar Ba moo ko ne doo bàyyi toogoo fi ak toogaat fi deux ans bu ko Matar Ba neewaat toogaat fi ñun luñ ci man <coughs> tu es ma di wax waa wasaare nañ la nañ la jàpp wala sinon ma jël la yóbbu la Futurs Médias parce que mën nga sa liggéey xam nga fi ngay teg nañ la jàpp sama doom nga gërëm la sant la di gërëm ñëpp nag xoolal fii boo fi ñëwee gis nga daa xaw naaj sax mais boo fi ñëwoon ngoon VIP yëpp fii la ñuy daje waaye yow dama lay wax da ngaa mës a gis baas bu mel nii ci ci xar ma ci àndal jàppandal bâche gis nga bâche bu mel ni doo ko si doo ko gis fenn ci xar waaw 563 68 10 mooy seen bâche mooy seen numéro téléphone jàppandal muy ñoo xamante ne ay professionnel lañ nga fi nga toog nii ngelaw li fu nekk lay jóge te daa tàng lool may gërëm di sant di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di wax ne àdduna nañ bàyyi ànd jaayante bàyyante jëwante di dimbalante te yàlla rek a tax lu waay may faatu ñaanal ko mu yokk parce que boo ko ñaanalee dina yokk boo ko ñaanalul dina yokk parce que yàlla moo décidé lool. di la bàyyi nag maas Boga dina la présenté xar yi wax lan kan moo leen moom ak yan catégorie xar la ñu am ah. kontaan ci yow maa fii merci.